rafetlu bu baax seen ànd seen kóolute ak topp bi ngeen ñuy topp ci diaspora news tv xibaar yi ci ab tënk dañu koy door ak parti bi di APR xam si la coalition Benno Bokk Yaakaar tënku mi xam ni daañu amal cérémonie d'investiture bu Amadou Ba seen ab candidat soxal jongante palub njiitu réew yi ñu dëgmal loole nag jeudi ñaar fukki fan ak benn ci décembre le koy amal ñu àddu ci leneen mujj brigade de recherche bu compagnie bu gendarmerie bu Kër Massar mi teg loxo lu 3 milliards de francs ci sunu ay koppar mu nekk ay faux billets bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga ni jot nanyoko ko ci sunu rédaction euh, agent yu major Abdoul Aziz Kandji defeere nañu talaata ji juróom-benni nit yi nga xamante mom ni moom teg loxo beaucoup na ci ñoom ab jàngalekat. ba tey ci lu soxal xibaar yi ñoo àddu ci l'accident bi nga xamante ne ni moo am ci autoroute à bi euh, ci euh, booru gaar bu euh, Toglu ba indi fa ay embouteillage yu jéggi dayo loole nag mi ngi xew si altine ji bi 18h jotee l'accident bu nag kenn jotu ca faatu waaye nag ñaar jële nañu ca ay gaañu gaañu ba ñu rek dal di leen évacuer fa nga xamante ne ni moo di l'hôpital Youssou Mbergane ba nekk ca diwaanu oh, tenge ca ñu door a xibaaru bitim réew ak jëye ja nga xamante ne nii moo am ci réewum Guinée Conakry di ab explosion bu sokkeeku ci dépôt principal d'hydrocarbures bu société nationale de pétrole ba fukki nit ak ñeent dal di cay ñàkk seen bakkan téeméer ak juróom-ñeent fukk dal di cay jëli ay gaañu gaañu mu nekk lu tiis sabab nguuruk Sénégal dal day yebal ay secouriste wala bokk ay soldats du feu ngir rek. ñu wallu leen ñu euh, fàttali nii ni euh, boobule jëya mi ngi am ci guddi di guddik a jàpp altine ñu sekki jéego wutali euh, réewum machine. foofee nak ap tremblement de terre mo fa am ci dekk bu ñuy wax Gansu be téeméeri nit yu toftal fuk ak juroom ñett dal di cay ñak seen bakkan lu tollook 400 personnes jëli ci ay gañu gañu lolé nak mi ngi am ci goudik altiné jàpp talaata te it ba ñuy àddoo ñi nga xamante ni ñoo di les secouristes ñu ngay wëyal seeni opération ngir rek dal day walu ñi nga xamantene ni ñoo ca jëli ay gaañu gaañu mbokk yi li mo fi gënoon a fës ci xibaar ñu doon leen ko dégteel di leen jaajëfal bu baax te it ci teewlu bi te it di leen dig daje ëllëg incha allah.